image bu yéemee boo xam ne danañ leen bàyyi ngeen dundli ambiance bi waaye ci ngeen di gën a jàppe Sadio Mané sama waa ji di ngeen xam ne du moromum benn footballkat ci àdduna wala ngal kàpp ci li nga xam ne mooy wàcce boppam cuufeel boppam ak cër bi nga xam ne jox na ko mille réew di réew moo xam ne mu mënoon a mucc ayib la réew mi mi ngi tudd Sénégal yéen a ngi fi nekk di ma diglu wolof laay wax kàddu yi am na solo gis nañ taxawaay bi ak li nga xam ne mooy sunu vidéo na ngeen koy aimé ak abonnement yi bu baax a baax Aladji Malick TV moo ne ci kaddu gi Dianthiou international ma nga noonu bala ñu leen ko jox maanaam daaye live bi nga xam ne daanaka da ngeen di dégg ambiance beeg maanaam version originale ci wàllu vidéo yu ñu tappale nga xam ne ñaar yu bokkul la ñu jël tegal leen ko ci taabal ji ngir mën cee jariñu xale bi nga xam ne daanaka ab tef la buy door a judd moom Dianthiou international ay kilifaam yóbbu woon ko ca estade ba mbégte muñ xam ni gone gi am na ko ak xar kanam googi ak baax gu baax moo waral ambiance boobee gars yi jël yëkkati ko moom it fardewul benn yoon yëkkati xale bi jàpp ko ci ñaari loxo yi wane ni ko maanaam yaa ngi ci biir àdduna bi nga xam ne ñun ñëpp ñooyam ñu diglu ambiance bi.

Vai, devo morrer, eh?